jëf mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare làmb nuyooti nañ leen am kontaante ak mbégte comme niñ leen koy defalee saa ne ñu ngi waat fii ci géejawaay kër Cheikh Super Jamono mu bëre woon ak fan yee passé moom ak moori Cargo ba gis ngeen li nga xamante ni ndogal bi nga xamante ni daloon na kii di Cheikh Super Jamono ñu ñëwoon fi waxtaan ceeg lépp waaye bi yoon tamit dañ fay ñëw ngir waxtaanaat verdict bi nga xamante ni g génnee nañ ko ci kase verdict ci digganteem ak Mori Cargo alamaan ko moom li xam ne ñu suspendre ko pendant ñaata weer huit mois du ko bëre Cheikh maa lay nuyu. waaw bisimilah rahmaani rahiim bisimilah rahmaani rahiim ma sant yàlla julli si yonent bi di sant samay ñaari waajur maa ngi leen di fay bu baax a baax waa wasaare làmb. ñu ñëw seet si la naka wér gu yaram bi noo def ak. waaw alhamdulilah ay saa moom maa tane bu baax a baax a baax a baax maa yàlla bu baax. Mhm. commencé nga entraîné wala commencé. nag. waaw mais maa ngi tane moom wax dëgg yàlla ah dese na ma quoi mais mu ngi tane bu baax a baax ndax maa ngi siy dox nang-nang. Mhm. par rapport ak bi ñu fi ñëwee ni mu niñ ko niñ ko gisee woon. waaw parce que bi ngeen ñëwee boobu mënu ma woon taalal sama tànk sax mais saa sama tànk mu ngi lemu zone bi moo xaw a des tuuti rek mais mu ngi tane bu baax alhamdulilah daal. Mhm. ba nga yéegee ni CNG kase nañ verdict bi sa combat yow ak Mori Cargo ndax làmb ja jotut am waaye comme ñëw nga ba ca làmb ja blessé. ñu kase verdict bi ak suspendre bi ñu la teg loo yëg. waaw loolu sant yàlla la ndax samedi la entendre bi ñu demee samedi ñu toog dem ñu laaj sama président laaj sama manager après ñu laaj ma man sama kàddu bëriwu si mais li ñu fa expliquer ñoom xam nañ ne carrément parce que arbitre bi nga xamante ne mooy Sitor moom nee na leen carrément kii parewul woon pour yàq làmb ndax moom ñëw na ne dafa bëgg a bëri kon ñëw ba si làmb ji ne dafa bëgg a bëre kon kooku bëggoon na bëre si tor si boppam moom daf ma témoin ndax moom si moom laa ñëwoon di ko ñaan ne ko ngir yàlla ñaanal ma arbitre bi ñaanal ma docteur bi pour mu bàyyi ma bëre ñu wax fa wax bu teggi ne gaa yi tamit ñun bi ñuy dem jot nañ ne tamit dañuy am foofu lu rafet gaa yi ajuñ ñu ma sax source la waa huit mois yooyu du bañ a bëre source la kon dañuy daf ma def source boo xam ne waruma defaat benn euh, kon loo xamante ne dañ koy tere. fii huit mois daal lépp lu règlement di bañ loxo Cheikh Super Diamono du ci ne. du si nekk te musu see nekk ndax bëri naa ay quatorze combats mosuma def lu ñu man sama xaalis CNG mosu ko dagg ba si biir géew arbitre am na arbitre boo xamante ne lan la may wax bu mbëri yëpp menoon nu yow ndax biir géew benn biteel laa fay indi dafa ne ma bu mbër yëpp menoon nu yow suñu liggéey day gaaw loolu la mu wax kon mosuma def lu ma CNG di ajee sant naa yàlla bu baax. promoteur bu bu pare sama combat pare naa pour bëre te am na ñoo xam ne ñu ngi si ñuy wax sama combat de boobu ba léegi waaw mais yàlla baax na daal. verdict bi ñu joxoon Mori Cargo mujjee kase verdict bi loo ci yëg. waaw loolu sant yàlla la damay sant yàlla bu baax a baax di jégalu Mori Mori Cargo di ko wax man it bëggeewu ma ko woon noonu su ma soñoon arbitre yëkkati loxoom wala arbitre yëkkati sama loxo ndax man dama pare woon sama combat pour ñëw bëreeg moom lu metti waaw yàlla may ma ndam loolu laa jëloon décision mais jàmm ak pexem yàlla ak dogalam comme que suñu borom noonu la ko bëggee nag dama koy jégalu ndax bëggeewu ma ko woon daal waaw. parce que tamit li ñu def après xool nañ xam ne tamit li ñu def parce que ñoom dañ ko joxoon victoire si jour bi mais bi demee ba toog waa CNG seen liggéey rafet na bi ñu demee ba toog ñoom xalaat nañ xam ne tamit li ñu def noonu du yoon ndax man bi ñuy joxe verdict sama licence ko fa. boobu jox nañ ma sama licence bindal ma kayit pour ma dem CTO faju yi mhm. léegi nga noppeeg loolu promoteur bi déggante ngeen. promoteur bi wax dëgg yàlla moom déggantewuñu mais moom sama papa la sama papa la ndax seedeel na ma lu rafet. waaw sama papa la ndax du tey moom a njëkk a bëreel bëreeloo grand combat moom moom njëkk a bëreeloo grand combat te moom xam na sama jikko ndax war naa fee bëreeg agogo combat bi des deux jours agogo am nu mu demee bëreetul. mu woo ma proposé ma beneen adversaire ma bëre kon xam na ne man du ma yàq làmb dama koy nuyu tamit o passage sama papa sëñ Modou Niang ak Pape Diagne Seras ak Ndoye waaw ñoom samay papa lañ. Mhm. yow daal loo am ci leneen loo xamante ne parce que wasaare dañoo ñëw ngir déglu lan nga xamante ni moom nga yëg ci verdict beeg CNG de lutte beeg yooyu léegi lan nga am looy wax sa moromu mbëri. waaw sama moromu mbëri tamit dama leen lancer message rek. ne tey jii tamit li ma dal bëgguma mu dalati beneen mbër ndax man li ma dal du sama coobare du nekkul loo xam ne dama dama dama ko bëgg wala dama ko sabablu ndax ku ma waxoon doo bëree dama naan la li nga wax amul. xam nga di wax tamit ñun bu ñuy gënnati nañuy moytu di yor su mel ni ay béjjén ay beeg yooyu ndax man loolu dootuma dalati ndax on sait jamais ndax man lañ ma sotti ba ma xabtalu def noonu xaw ma ko amaana dañ ma ko waroon a kii rek xam waaw. kon ñu ngi lay jaajëfal. waaw di santaat yàlla tamit bu baax xam nga di jégalu samay supporters yi di leen jégalu bu baax di leen wax tamit xam nga nañ ñaan ñu ngi si leneen loo xamante ne xam nga ñaan naa yàlla mu sotti ma fay leen seen bor bi xam nga di nuyu sama papa Bari Sey sama yaay tata Marème xam nga sama tante sama yaay Kiné mu ngi itali maa ngi koy nuyu bu baax a baax xam nga sama yaay aw ma fayam sama soxna tamit. waaw maa ngi koy sant bu baax a baax sama nijaay Ahmed Papis xam nga Pape Ndiaye ak Moussa Ndiaye aw ma seen fay sama gars yi ñoom Baata ñoom Modou Gisee xam nga ñoom Saliou ga sama gars yi ñëw fii yëpp aw ma seen fay ndax xam nga lam boo nekkee si ay métti nii da ngay waaw lu nekk ngay gis lu nekk ngay dégg mais sama gars yi aw ma seen fay di jégalu waa Géejawaay sama mag wextaan fàttewu ma ko di nuy sama papa prési xam nga ak sama papa sama ménageur mooy père Djili sama entraîneur. père Ngéloum maa ngi koy nuyu baax démb rek woo na ma sama père Gomez nga xam ne moo may entraîné ak suñu entraîneur Amady ak suñu entraîneur père Mao ak Ser Sari waaw su ma limee damay juum xam nga di nuyu tamit sama Ousseynou Ousseynou sama goro maa ngi koy ndax moom daf siy jàpp bu baax a baax ak bokkar bu pikin waaw di leen. non sama adversaire déggantewuñu xam naa amul sama numéro mais man bu ma amoon numéro sax maa koy woo jégalu ko. waaw comme que moom woo ma su ma amoon numéro dama koy ndax làmb la. waaw lépp Sénégal la moom dëkkul feneen Sénégal la dëkk man Sénégal laa dëkk ñun ay doomu Sénégal lañ amaana xam nga amul sama numéro mais man su ma amoon numéro man maa ko njëkk woo jégalu ko si ñàkk ba ñu bari beeg moom ndax on sait jamais làmb dafa tëre di daal xam nga mën nañ daje feneen waaw mais man nekkuma kuy yàq làmb waaw. yor naa numéro am xam naa ne dinaa dem ci moom woo ko jox la ko ngeen waxtaan. amul benn problème waaw parce que làmb la bëri naa fekk bee bisimilah daanu ma làmb ji demee neneen ñu jox ko après ñu jox ko victoire mais après daf ma woo ñu sekk jàmm waxtaan nañ mais après day dàgg ndax làmb mën nañu boolewaat ndax man ku may gaañoon rek mooy mbër bu nekk géejawaay laay gaañoon mais mbër bu nekk feneen du ma gaañoon ak yow suñu waxtaanee nag mën nañ kii waxtaan ku waaw joxante xalaat mais après loolu day jeex di ko ñaanal bu amaatee combat buy bëreeg mbër bu dëkkul géejawaay yàlla na ko yàlla may ndam waaw. jërë ngeen jëf dégg ngeen li nga xamante ne moom la Cheikh Super Diamono wax ci diggante moom Mory Cargo ñu leen di jëfal ba ëllëg incha allah ci beneen xeexewu làmb jërë ngeen jëf. gis nga ànd am nu demee noonu. adversaire gis booy bi ne si forme xam nga li nga wax loolu mën a demee noonu. billaahi ba fii jàmb moom dama ñibbi. te dafa blessé. daa blessé. koy defee noonu yéen yéen yéen yéen ñi nga xamante yéen ay nu ko gisee. day yàq làmb loolu day yàq làmb xam nga te làmb lu ko defar moo ko lu koy yàq xam nga am loo xam ne naa su sax gis-gis rafetul li dafa ñaaw bi xam nga gis ñu lii dafa dafa doy waar daal. moom Cheikh Super Diamant dafa xamul mooy cargo wala nu mu demee noonu. xam na ko dafay jaaxaarloo muy santé contrat amaana mbër bi jaaxaarloo ak siyaar naa la dinaa ñëw ñu waxtaan. jërëjëf Faye kontaan naa si yow. jërëjëf Faye. kon délégation Saabal bés bés tuuti borom lay tollool waaye nag li ma di wër mooy moo di Karpo nii nii adversaire am ñëw na ba ci biir làmb ji indi yéenam attiré na ba mel ni moom waaye fa Aliou li maa yuriidu yàlla mooy dogal li ko neex ci la am benn blessure si biir docteur bi constaté ko xam ne yéen a ngi ko jublu ba question de combat da nga wax fa laaj nga yëkkati cent xale bi tamit nekk xale boo xamante ne dañu ko tuut mu accepté nangu xam ne kenn daanu ko suñu borom ko daan jégal mu nangu ko tuuri alaaji balaa nga ne nii grâce ko baa yàlla ñu la jubal ay ca ca kon kon ci des ma nekk ko ci ko ci moo di am na ci ko ci biir biir bi ñu def ko nga xamante ne moom mooy ko euh, def yëkkati ko jox ko grâce ko xale yi ñaanal ko yàlla ndax loxo Mori Mori daan na Cheikh loolu nga nangu ko ñenn ñi da laa ragal sa état loo ciy leeral waaw gëm naa loolu nag parce que xam nga ñëw na ba biir stade bi bu doon këram la gaañoo ko du ñëw na ba fii nii ñibbi waat xam nga mais jël bi maa may xam nga sama benn gaan boo xam ne sama combat mu mujjee fii ñoo ànd te yàlla dogal mu làqu xam nga segmenté maa ngi koy may victoire bi ak maam Birame Diouf di ko may xam nga ñëpp ñu doon ànd ak ñun te jël leen du tuuti Mori Cargo fu mu jëm waaw li sama kanam bëri na parce que instant yii nii maa ngi si entraînement yu méttee méttee ko wax fee ñu ni ñan bëri na lamb yaa ngi sama kanam. waxal gaa yaa ngi lay dégg yaa ngi sama kanam. ay armée bu bëggee na ñëw booleel ñu bëre. ay boy armée. macha allah grand bi laa dëgg ragaluñ loolu. dëgg loolu jaajëf jaajëf rang.